ça ne vous a pas échappé tey Marcel Farba Maroun dafay jox place am Cheikh Diop Cheikh Diop dem ba fële ci Tiwaawan wala ay dëkk yu ko wër dem dajeeg ñaari soxna yu ñàkk seen doom bokk na ci liir yi faatu ci lakk bu metti bi amoon ca centre néonatologie bu hôpital Maam Abdoul Aziz Sy baax mu di ay soxna yuy dund ak tiis ak naqar boo xam ne duñ ko mën a fàtte ci seen àdduna ngir info matin ñaari soxna yooyu waxtaan nañu ak Cheikh Diop document bi la ñuy seetaan ñu dellu siwaat hôpital maam Abdoul Aziz Sy ah, diwaan bu Tivaouane mbokk yi ñu def ay kilomètres ngir daal di egg si file barab bi ma nekk mu mel ni itam miin ngeen ko lool ci gis-gis ginnaaw jéey ju miti wi nga xam ne euh, moom moo fi xew lu toll ci fukk ak benn ci ay doomi aadama rawatina ay tut tànk ay liir yu tooy xepp daal di fi génn àddina ginnaaw lakk-lakk woo xamante ni am na fi ñu teew ci dëkku sel wile ngir séq ak waxtaan ak ñi nga xam ne ay way jur lañ bokk ak ñoom li nga xam ne moom moo di euh, naqar wi daal di leen masawu ba noppi itam jaale leen daañu wutali fu ci mel ni euh, ndutt foofe benn waajur lañu fay fekki bu ñu jugee foofe itam daañu wutali diwaan bu ndàdd dem ci benn village boo xamante ni euh, ma nga foofu foofe beneen ab waajur moom moo fa nekk ñoom ñëpp daañu seex ak ñoom waxtaan fii ci télévision moom moo am ci hôpital maam Abdoul Aziz diwaan bu ci Tiwaawan moom la ñuy jéem a dem seeti séq ab waxtaan ak moom bokk itam ak moom li nga xam ne moom moo di naqar wi euh, soxna si noo tudd maa ngi tudd Seynabou Diaw Seynabou Diaw Diaw waaw yi nga xam ne ñoom ñoo dundoon mbir mi mën nga dikkaat ci mbir mi nan la dem waaw mbir mi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ni mu demee woon a fàtte ndax mercredi la tombé woon comme d'habitude da xëy suba dem nàmpali ma xëy suba dem nàmpali ba ay 14 heures ci laa ñibbisi bi ma ñibbisee vers 23 heures et ci laa yëg mbir mi nu ma am ci hôpital ba doon laq ci suñu doom yi fa ñu nekkoon la. Hmm. ma ko yëgee rek tiit ak jaaxle ma daw jëm yoonu hôpital ci suñu waa kër dabee ma wasan benn ma gu jëkk bi ñuy wax Mansour Diouf mu jël otoom daal di may yóbbu fa la nekk vingt trois heures et demi ba une heure du matin mais amuñu dara lu ñu leer ñi ñi defal naan garaawul garaawul lu ñu nangu sax yow yaayu doom ji dugg garaawul garaawul dal leen am na trois personnes ñu évacué trois bébés ñu évacué Thiès dal leen dal leen man yi ma def espoir ni comme sama doom tane woon na bay waaj a génn xëy na amaana bokk na ci trois yi ñu noonu ma koy dalalee sama xel ma ñibbisiwaat fi yeneen di heure du ma jóge hôpital fi ñibbisi ma ñëwee may fexe di gëstu di gëstu ba am ba am ku ma woo hôpital régional foofu laaj ko ñu ma kenn évacué fa kenn naka boobu ñii suñu waa kër sax xam nañu ñëpp xale yëpp dee woon nañu waaye dañu ma ko nëbbu. ne sa doom génn àddina métit bi nga xam ne jot nga koo daj mu mel ni itam euh, moom mooy doom bu góor wi nga xam ne moom nga jotoon am lan la def si sa xol. ah tiis ak métit rek ndax ëmm dafa métti ëmm neuf mois wasin métti nga ñëw gis sa doom mu judd ci jàmm ak salaam ñu tudd ko tuddee ko Seydina Muhammad ngay ñaan yàlla gis ko mu màgg tete ko muy dox tete ko muy raam di dox ba màgg. ah yàlla ak ñëw ndogalam mais tiis na metti na loolu waaw naqar ak tiis lañ ko mën a dundee wala kook sant yàlla. jot ngaa dund ak moom ndax itam judd na ba am ay bés. Mhm. jot naa dund moom ndaxte tudd nañ ko lenn bañ ko tuddee mardi mercredi ci la affaire yi am te bi mu juddoo chaque euh, jour demand dem di ko nàmpali ba 17h ma ñibbisi. lan moo ko delloo woon bu mu juddoo dañoo ne dafa xaw sonn. Euh, boo ñu ñuy dafa amoon infection mais par la suite papa ma ngi leen topp sax génne leen ko génne leen ko kii tane na dikkee naan ko ñii war nañoo mën a génne kii muy ñëw rendez-vous ndaxte tane na par rapport ak yeneen bébé ma ko fi gis du pois du dara loo xamante ni sonal na ko lu war a tax ñu war ko fa amunatee par la suite ñoom it ñu ni vendredi dinañu ko jox incha allah ndax jeudi bi feet la woon ñu ni vendredi dina génn mercredi ba ci la affaire yi am. bi mu amee euh, mu nekkoon doom bu góor bi nga njëkk a gis. Mhm. waaw mu nekkoon doom bu góor bu ma njëkk a gis. Mhm. nga doon ko ñaan du yàgg yàlla may la ko mu génnaat àddina. waaw nga doon ko ñaan yàgg yàlla jox ma ko it mu ko jëlaat rek ñu santee ko yàlla waaye am nañ ci tiis ak métit loolu ndaxte mën nañu tey négligence am na ci ndax li ma naan damaa jëlale man sama wàll ñi mi mat le mais la nekkoon ci prématuré bu fa benn garde na nekkoon amaana bu leen ëmbee ci yëreem ñu xaj ci li ñu waxoon rek ba président ñëwee dañuy ñuy waxaat ñu bëgg ñu wax ñu garde yooyu fu ñu nekkoon juba loolu di xew ba ñu tëj ay xale yu ndaw xale yu innocent yoo xam ay appareil tiim leen seen lépp ay appareil la appareil tiim leen courant di ko doxal ak leneen ak leneen tey ñoom ñu war leen a mën a tëj dem ak xel mu dal ba lii xew jiyee bi am ba xale yépp dee ji te kenn ñëw pour sauver leen ce qui veut dire que kenn neew fa woon. lan def ci wajur woo xamante ni ñàkk na doomam. Ah, metti rek ndax boo njabootee sa boo sañoon loo njaboot njaboot boo sañoon. di nga fekkee ñëpp ñu dund màgg barkeel ba nga fekkee seen njëriñ wax maa nga xamante ni yàlla jox la ci woon lu ñaar bi mooy sama ñaareelu doom nga xëy gis ko mu judd ngay ak ñaan yàlla am plaisir ñëw indi ko sa kër teg ko sa kaw la dund ak moom amul boobu ni mu neexee nga xëy suba yàlla jël ko metti rek la moo def metti doom moom daa nekk loo xam c'est ça dafa sax ci xolam moom mënu koo faat. donte jéey ji am na métit wi dal sa kaw lan moo la ci gën a métti ginnaaw bi nga yëgee lu ni mel ak itam bi mbir mi amee. waaw li ma ci gën a métti rek mooy li ma wax nii négligence yi am ci hôpital yi ndax may wax ne booy dem. boo waree dem visite ngay commencé di am lu la metti ngay commencé di am ba ni ngay looloo accoucher ndax sage-femme la nga waroon taxawoo dëgg des na tey amaana ñoom seen loxo buñ defoon lañu waroon a def kon amaana ndogal gi dina metti mais dina gën a woyof ndax amaana au moins dinañ mën a sauver benn bébé ñu ni ko ñii defoon nañ sacrifié woon nañ sax au moins pour sauver benn vie ne yoon dugal na euh, loxoom ci wàll wi sa gis-gis itam. ah xanaa di leen ñaan rek ñu def seen liggéey ba mu mat ndaxte lii war naa tax n'est première fois amoon na fi ba quatre bébé gaañu ci tey mu amaat bi méttee ci onze bébé ñoom sax bu justice liggéeyul ñoom waruñoo kit ak seen conscience ndax bakkan dafa foor fukk ak benn bakkan ku ko war a téye sa lodd bi yaakaar naa boo tëddee waroon ne la ñuy ñaan justice mu def liggéeyam ku ci am luñ ci war a daan ñu daan la ko ku ci am lu ñu la war a teg mu teg la ko ndax pour mu service de leçon ñeneen ñi jël blouse di ko soxla. njiit mu réew bu Sénégal jëli dogal jëru ji nga xam ne moom lañ dénkoon wàllu wér gu yaram itam ñu daal di tekki ay ndombal tànkam euh, njiit mu réew mi ñëw ba Tiwaawan ngir daal di bokk ak yéen tiis wi. Mm-hmm. waaw ñu koy rafetlu ndax li ma leen wax góom lu mu metti metti buñ la nee mas rek lu bari dina wàññeeku. tey lu mu metti metti ba mu dikkee bokk ak ñun tiis bi àdduna war nga këpp képp fu mbokk nekk fi doomu aadama nekk dalay woo di la màssaw ak di bokk ak yow tiis beeg naqar bi kon loolu rek wàññi na ci lu bari ci naqar bi. gis koor yi. ah non man moom franchement mënu ma ko woon a sama borom kër da moom moo ñoo demoon waaye man suba ñu rabi moom demuma woon non non sama xol xamante ni bëggoon nga koo tette taf ko ci sa dënd. mbokk yi mu mel ni euh, xol tooy ba itam mënatul a yëkkati ay kàddu ngir ngeen mën a dégg ndax xol bu tooy boo xamante ni moom moo ko jàpp. ñun itam ñuy bokk ak moom li nga xam ne moom moo di naqar wi bu baax a baax di ko masaw di ko jaal di jaal itam bépp waajur woo xamante ni sa tur tànk daal dinay dëddu ci mbir mu ni mel du ñu yem ak moom daañu dem toppal leen mbir mi dem gisaat itam yeneen waajur yoo xamante ni daal ñu ñàkk seen doom ci jëye ji nga xam ne moom moo am ci hôpital Maam Abdoul Aziz Sy baax diwaan bu Tivaouane mbokk ñu dawaat yeneen i kilomètre ginnaaw Thiès Kébémer Ndande Fall fa nga xam ne moom moo di Ngagne jaar nañ fa itam ñu ngi fii nga xam ne moom moo di ah, ci Bousramar fii itam beneen wayjur woo xamante ni daal na ñàkk tànk fi la dëkkee moom daañu dem séq ak moom li nga xam ne ah, moom moo di waxtaan mu wax ñu jee ju ni mel ak nan la ko dundee. soxna lay nuyu. ngi lay masawu di bokk ak yow naqar wi si gën digaale. si gisawaan. la. Anta Anta Sey. Anta Sey. Anta ñu gis ne eh, ñàkk nga ñàkk nga sa doom ci li nga xam ne moom mooy jëye ji xewoon ci hôpital maam Abdoul Aziz bu ci waawoon bi nga ko yëgee mbir mi nan la la def ak fan la la fekk. bi ma ko yëgee mu doon loo xam ne metti na ma trop. ndax ay xale ndaw lakk ci lu mel noonu metti na waaye damay xam ne rek yàlla moo ko dogal. nan nga ko yëgee ak fan na la fekk. man dafa fekkoon may waaja a tëdd sax ci laa dégg ñu ni pédiatrie mi ngi lakk ci laa génn coow li bari foofu ñu ni fi xale nekkoon moo lakk loolu kese moom laa ci am. ci hôpital waaw. maa ngi woon ci mbaar mi ni fanaan foofu foofu laa nekkoon. après ñu ñëw ñu ne la sa doom génn àddina. man avant ñu ma koy wax xam naa loolu ndax dañ ma fi xale nekkoon mi lakk ci laa xam ni kon ci la bokk ci laa xam ni moom lakk na bokk na ci waaw. après def na. ah man def sa doom lakk na kay. xam nga ni metti na kon ko wax kay metti na day sant yàlla rek xam ne moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat. ëmb juróom-ñeenti weer nga jur sa doom xalaat ne war nga ko mën a tette taf ci sa dënn ay fan ginnaaw bi mu juddoo mu daldi di dëddu. waaw juróom-ñeenti weer metti na am doom tamit metti na. waaye nag comme yàlla moo ñu sàkk ñu ñëpp ci moom lañ jóge ci lañ dellu xol bu fees dañ ko fekkee moom itam euh, mu daldi di sëngéem mu nekk beneen waajur boo xamante ni ñàkk na li nga xam ne moom moo di tut tànkam mu doonoon ñaareel bi doomam waaye soxna si nga bës sa xol ñu àggali li nga xam ne moom moo di waxtaan wi di la masawu encore une fois bu baax a baax a baax li mu juddoo ba am ñaata fan ci la mbir mi am. kon jot nañ koo tudd. waaw tudd nañ ko. tur bi sax waxaguñ ko woon ci la loolu xew. domb lan la woon. góor la. domb góor la. am domb góor. déedéet sama taabu eh, def ngeen li nga xam ne moom moo di eh, dëj bi ba noppi bi ginnaaw bi ñu ko dencee. sarax bi def ngeen ko. waaw tey jii lañ ko doon def. waajal ay ndax dina la dikk nga di tëdd guddi xalaat sa doom koo xamante ni yaa ngi doon jortu ne dina nekk sa wet ba nga tette ko. waaw ndax ci moom yaakaar amoon naa ci moom yaakaar su ma tëddee guddi tamit.

waaye itam jot naa def kéem kàttan ngir daal di waxtaan ak ñun nettali ñu ci ni nga xam ne noonee la mbir mi demee xëy na waxtaan wi du yomb ndax itam fi ñu ko fekk ak itam sa ngéem wi nga xam ne daal na koy def boobaak léegi lu ni mel bokk na ci loo xamante ni moom lañ leen bëggoon a digtal ginnaaw jee ji nga xam ne am na ci hôpital maam Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane lu toll ci fukk ak benn ci ay tout tànk ay liir yu tooy xepp daal di génn àddina ginnaaw aw lakk-lakk woo xamante nii am na fa fi lee nga xam ne nag fi la ñu euh, nekk ginnaaw euh, bi ñu dawee ay kilomètres ngir daal di fi egg ngir daal di leen jukkil lenn ci yoo xamante ni waajur yi donc euh, yëg nañu ko ginnaaw bi ñu ñàkkee nga xam ne moom moo di seeni ay tout tànk xëy na fi la ñuy euh, yemale li nga xam ne moom moo di jotaay bi di leen jox di daje incha allah beneen yoon ci télévision Futur Média di jaal réew mu Sénégal ndax itam Sénégal moom moo ñàkk di leen ko jaal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di wéyjur yi di ñaan lu ni mel yàlla na fi gëj incha allah jër ngeen jëf. merci beaucoup euh, Cheikh Diop ak euh, Yaya jàlloo ñoom ñi demoon ba foofu ngir euh, taataan kàddu soxna yooyu ñàkk seen doom muy ñaari soxna ci lakk bu métti bi amoon foofu ci hôpital Mame Abdoul Aziz Sy baax ba ci Tivaouane di leen jaale encore une fois di leen masawu bu baax a baax alaaji Malick ni ñu koy waxee yaakaar bu yekkeeku la ndax ku nekk waxuma la jëlale naa sax jigéen ñi mais góor sax xam na métitu ëmb juróom-ñeenti weer matu ba noppi wasin ñu ñëw na la sa doom dafa faatu ci ab lakk. metti na metti na ba fa metti mun a yem loolu moom vraiment foo ko natt rek weesu na ko waxuma la eh, jëmm ju lakk mais baaraam bu lakk sax bu la dalee ngay bëgg dee waxuma la nag eh, nga ëmb juróom-ñeenti weer yàlla dogal nga mucc bi nga muccee sa doom xëy na matul. wala sa doom am feebar nga dem di ko faj. Eh, euh, Alaaji Maalik ñu taxaw sax ci moom mucc boobu naan ndax mucc moom dafa mel ni comme si genre danga sa bakken dafa nekkoon ci xottu gerte. parce que ku nekk xam na ne ëmb diggante ëmb ak wasin lu nekk xaj na ci. mais tu moo tax olof di wax ne juróom weer fukkeel ba xaw laa gaañ. donc toujours saa booy wasin sa benn tànk mi buntu bàmmeel. loolu moo tax ñuy wax juróom weer fukkeel ba xaw laa gaañ. bi ngay. juddu lu sa doom. lu nekk mën na ci am. donc looloo tax ñu bari des fois dañuy am doom sax doxe fa faatu. mais nga yàlla dimbali la ba nga mucc am yaakaar lool ci sa doom ñu tudd ko nga dem di ko faj pour mu gën a wér métit métitu feebar bi rek déjà métit la ci yow. nga ñëwati encore mu lakk ba jeex. Mm-hmm. loolu dara gënu ko metti mais ce qu'on dit rek mooy plus jamais ça. Absolument. responsabilité yi nañ ko situer. Mm-hmm. Euh, lépp lu nga xam ne war na ci mun a am ci wàllu daan ñu teg ko ñu ko war a teg te nguur gi tamit gën góor góorgóorlu ci suñu infrastructure sanitaire yi. Hmm. wax dëgg yàlla boo demee ci hôpital da ngay dem di faju ji mais jàngoro nga fay jëlee boo moytu. Hmm. Eh, Chérif euh, euh, am na ñaari mbir yu am solo yu ñu dégg ci témoignage ñaari soxna si soxna yi ku njëkk ki moom mi ngi wax wàllu négligence ni que nekkuñu fa woon keneen ki ci des am na lu mu wax maanaam ñoom ca mbaar ma lañ tëddoon. seen doom yi nekk fee ñu tëddoon ci mbaar ma maanaam loolu rek tënk na métit yi nga xamante ni ñiy dem di faju ji ak ñiy faju ñu koy dund ci bërëb bu fajukaay c'est aussi l'occasion de s'arrêter ci li xew instant yi ci agent ak agence de santé yi foofu ca Thiès ak Tivaouane mm, waaw moo tax xam nga wax naa fi démb ne moment bi surtout agent de santé yi nu manifestation yu ñu dégg du respect sax ci mémoire yu ñu dem ak famille victime yi parce que am na loo xam ne bu amee mën nga jàppale say ñooñ wante dafa am noo koy defee maa ngi doon wax naan même barab ba mbir amee lieu de recueillement la war a doon wante hôpital war nekk barab boo xamante ni comme ni nga ko gisee da nga doon ñaxtu parce que gis nga femmes nga xamante ni témoignage yi ñu def ñoom ñi ngi ci dëy ba léegi par respecté loolu rek war na mënoon tax kon am na ñoo xamante ni war nañ ko doxalee terewul nag nga jàppale say ñooñu ci wàllu justice suutal leen ay avocat parce que boo dégloo témoignage yi soxna wax nañ ko ñu ci bëri dëkkoon sax biir Tivaouane bi ay village bu ñëwee xëy na ci dëkk ba amuñ fa mbokk wala amuñ ku leen fa taxaw moo tax quand même même su suy hôpitaux yi gënu fi même fii Ndakaar boo gisee des fois nga gis a na fi mm. a dem ministre bu jot chaque fois les mêmes mots la utiliser gis nga presse bi tey ñu naan xemes envoyé aux urgences amul benn urgence parce que on répète les mêmes mots depuis dix ans bu mu fi nekkee ba léegi chaque mercredi ñu naan président table ak président et c'est pas ça qui règle le problème affaire du ay mots vraiment il faut des actes yoo xamante ni dañ ko war a euh, bu ci nekk day baax léeg-léeg ñuy euh, ñu naan bu doon man mm-hmm. euh, je pense que jigéen yu bëri seen xol tooy na bu ñu gisee euh, témoignage yi ngër euh, mu sax jigéen ah wax nga ko euh, je pense que même boo impliqué indirectement ci wàllu bi nga doon góor sax munoo insensible ci genre yu mel nii donc pour firndeel rek li ñuy wax au delà des des li nga xamante ni moom mooy li ñuy manifester ñoom blouse blanche yi war nañ ko def de façon vraiment assez consciente xam na ne fu mu nekk nii ñii bokk nañ pour ne pas exagérer ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a am métit jamono ji Sénégal mm. donc euh, je pense que jàppale leen ci beneen wàll war na leen euh, plutôt que de penser à manifester euh, actuellement donc mhm. euh, yàlla na leen yàlla yërëm daal on le répète on ne cessera jamais de le dire et puis continuer di leen may xol muñ waaw mhm. à ces parents là ah, Cheikh très rapidement laata ñuy demee sama pensée damay jëmale ci borom këru soxna soo xamee ni peut-être que waroon na témoigner ci reportage bi te fekkewu ko. parce que am na koo xamee ni nee nañ ci xibaar dafa bi mu muccee la ñàkk bakkanam. mu ñëwaat ñàkkaat doom doom ji ñàkk doom yi xam naa ni kooku boroom kër googu moom tamit te tey jii mi ngi ci euh, métier boo xamee ni kenn mënu ko natt mm-hmm. comme ni ñu koy waxee rek. Euh, catastrophe drame bi foog nattu weesu na ko. Mhm. on pense à chaque famille de victime parce que ku nekk ak sa histoire ku nekk ak sa jaar-jaar yaay bu nekk ak sa jaar-jaar njaboot bu nekk ak sa jaar-jaar ak métti